Euh, Doudou Wade tey euh, tàmbali nañu euh, prendre connaissance des assises des conclusions euh, des assises de la justice mënuma waxtaanee lépp mi dafa am ñaar yoo xam ne bëgg naa ñu ñu taxaw ci benn bi mooy ne ils ne se sont pas entendus en tout cas ci rôle bi nga xam ne moom le président de la République war a au niveau du Conseil supérieur de la magistrature gisoon nañu ko ci assises nationales yi Eh, bari na homme politique yu doon taxaw di naan wooy le président de la République doit eh, quitter le conseil supérieur de la magistrature eh, pour une plus grande liberté des magistrats et cetera et même ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii tey bokkoon nañ ci ñi nga xam ne ñoom ñoo doon plaider loolu waaye mu mel ni nag au contact de la réalité du pouvoir il y rétropédalage gis naa sax Alioune di ñëw à leur secours en disant il ne faut pas qu'on ait un gouvernement des des des des des juges euh, président de la République warul génn conseil supérieur de la magistrature Maïmouna ce qui nous manque ah ce qui nous manque ah. c'est le courage de dire la vérité et ce qu'on pense c'est-à-dire dañu nekk aux aléas saa yu dara changé ñu def nii man gisuma woon fan la fan la fan la les magistrats dans leur grande majorité di d' ci ñu génne le président de la république au conseil supérieur de la magistrature. c' est dangereux ma ne c' est gisuma ko woon xam nga nit dina bañ a def dara te dangereux parce que convenance lay doon parce que am na lu mu prouver parce que am na lu mu def gis nga conseil supérieur de la magistrature ci ni ma ko gisee man notamment ci évolution da ngay jëkk jàpp ne. ci constitution 1960 parce que foofu lañu commencé parce que ñëpp dañu ne constitution boobu moo gën ci ñun loolu la ñu wax am na ñu ko wax da dañ ne sax ci lañ jógee dem ci présidentialisme très fort président nangam nangam tout ça conseil supérieur de la magistrature assistant wu président de la république la assistant comme ki nga yor fii mu lay tàppeel di defar di indi après mu indi la café boo amee gan mu dugal ko indi la papier nangam assistant au président de la république la loolu moo doon rôle fondamental alors bu ci boobu euh, dafa am lu bari lu ci jaaw lu bari lu bari lu bari lu bari d'abord euh, euh, conseil conseil conseil supérieur de la magistrature boobu boo ko seetloo 1960 euh, ci recherche yi ma def juróomi tubaab ñoo fa nekkoon am na kenn koo xam naa ko ci turam Jean Benglia xaw ma ndëgg mujj na nekk Sénégalais wala déet mais juróomi tubaab ngay dem nag ba conseil euh, euh, conseil supérieur de la magistrature du am euh, ay Sénégalais rek nekk fa mais mu am ay modification modification yu ci am moo tax en un certain moment ñu def ci ay modification yu permettre ñu génn simplement ci magistrat yi euh, am ñeneen parce que ay ay ay ay ay ay membres euh, le président de tel le président tel loolu mais après mu am magistrat yi di nommé ay nit ñu dem fa moo moon il faut que ñu remarquer na qu'il y a eu une démocratisation du conseil supérieur de la magistrature ensuite may mun a am na loo xam ne lii dañuy defe ne président de la République mën na ko président mënuñu conseil supérieur de la magistrature ci réunion du ñu président ñu ak ci réunion déedéet dafa am ce qu'on appelle le pré-conseil nga xam ne mooy daje dañuy daje dañuy daje waxtaan ñoom li ñuy waxtaan ba jubboo ci ba pare dem nag ci réunion ak président foofu président day ñëw rek entériné problème bi xam nga fu mu njëkk la gën a nekk sur les consultations à domicile parce que li ma lay wax ci téléphone boo ma bu ma la ñaanee tey ne la awma xaru tabaski yow may mun a li nga may tontoo ci téléphone day gaaw boo paree ba paa bi dafa ma sonal mais bu ma ñëwee ba sa kër laaj la ko ni nga may tontoo dafay wuteek noonu loolu mooy danger consultation à domicile toutes les consultations à domicile yi ñuy def dans les matières au notamment sur au niveau des domaines des opérations domaniales ici au conseil supérieur de la magistrature ay danger la devenir parce que facilité bi d'engagement bi parce que foofu doo yëg ndëgam président téléphone la am déedéet mais bu ñëpp toogee nag ñu war ko discuter beneen problème la c'est pourquoi moi je pense que d'abord il faut réduire réduire réduire euh, au strict minimum euh, les consultations à domicile xaw ma ne du ñuy décider mais dégg naa ay magistrats wax notamment euh, l'ancien médiateur de la République euh, comment il s'appelle le magistrat là. Demba Kandji Demba Kandji il a fait une excellente contribution il y a quatre à cinq mois dañ ko liirul de. mais il a apporté une position très claire pour dire qu'il était même dangereux à mon entendement de de de de de de de ne pas avoir le président de la dans le conseil supérieur de la magistrature ensuite dans le conseil supérieur de la magistrature ensuite Maïmouna la constitution du Sénégal bu fekkee ne dafa am benn pouvoir boo xam ne dafa indépendant du président de la République ba lu ko neex def disposition bi wax ne président de la République ne ko yow vous êtes chargé du fonctionnement régulier des institutions foo koy teg moo tax président de la République war na am marge. jox ko sax pouvoir mu mën a arbitrer en cas de crise des institutions. même crise des institutions conseil conseil am na lu mu ci def bi passé nañ ko nangu. atte ba baax na baaxul mais am na lu mu ci def mais président de la République mënul chargé du fonctionnement régulier des institutions te du xam institution bi lu ci xew bon mën nañu wax ne nag peut-être. am na ay réunions yoo mën naa am ay réunions yoo xam ne yi peut-être mën na ko présider wala keneen mais euh, comme président mën na nañu daal restreindre ses pouvoirs bu fekkee ne am na ko dans le conseil que ñu ne dañuy bàyyi les magistrats seuls. mais pourquoi nit ñi di euh, souvent nit ñi di rétropédaler euh, sur cette euh, sur cet engagement euh, électoral une fois arrivé au pouvoir. non nekkatul ci sengoor mu ko defoon ak lu Diouf ak keneen ak Abdoulaye Ndong xam nga fu nekk. pourquoi cela ñu rétrograder loolu mooy wax bi. pourquoi ñu rétrograder précisément lu tax lu tax Sonko ak Jomaay ñu rétrograder parce que dañuy jàpp tey ne li ñu doon wax manul am du dëgg baaxul dañuy jumoon lueur la ñu gisoon.